tawféex googule euh, ñuy ñaan yàlla mu yokk lool incha allah alors mu ñu bëggoon a xam lu tax ngay woon at mi yëpp sauf tabaski ak korité waaw dama tumuraanke woon am nga ñaare <laughs> du may bëgg ñu may laaj sama démb parce que dafa métti woon man mas naa ko sama benn mbokk dafa ma mere woon sama benn mbokk ni ma waaw maa la duma la gis di maa ngi soxla woon naa wax ba yeggal ma ne ko ñaata at laa nekk Tiwaawan mu ne ma xaw ma ko ma ne ko mas nga maa seet si mu ne déedéet ma ne ko mas nga ma toppatoo mu ne déedéet ma ne ko kon lu tax nga di ma seet si nga bëgg maa seet mu ne tekk ma ne ko na leer ma ne ko danga nga jàpp ne xëy na boo ñëwee da fa am benn dërëm wala ñaat dërëm mu ni ko nit boo bokkulook moom coonoom da ngay maandu ci ay mayam parfum bu ko waaju tuuroo bu la xeeñee lew na la waaye bul ne ko biteel bi dama ciy tuuru man sekk dama daj ci daara lu ne dama daan xëy jàngi kaatim turi ku baax la sëñ Abdou la nekkaloon soxnaam tudd Yaasin Njaay man su ma xëyee jàngi bala maa ñëw danaa fekk ñu añ añu daara ci duma am fu ma lekkee man dem naa ba lekk boppu mburu bu fees dell ak sànqaleñ ma dem ci su ma daan sangu ji li nga sama baaraam bi web dama ci ko dama yaroon web yi su ma ñëwee ci duus bi damay capp saabu yu toj yi ba mu daje ma def sama njàmpe moom laay sangoo parce que aw ma njëgu saabu bidon laay yóbbu sangoo ko bon ci saabu yi moom laay def sama njaam te kenn du ma xamal dara ma nekk ci lool bi ma ñëwee di sangu ma fekk benn bopp mburu ci kaw fenêtre bi que sept heures génne ci daara ji sept heures laay kon fu may lekk su ma ñëwee dinaa fekk ñu lekk añu daara ji <laughs> jël bopp mburu bi di faxa sànqaleñ ma yëg ne su ma ko toppee mburu bi day jeex ma fay làmp ba ah nooy def yii mburu mi mburoog sànqale bi foo ko dégg dara nekku ci ma jël bopp mburu ba noonu laa ko booleek sànqale ñe lekk ko jël bidon bi ma doon sangoo naan ba sama kollu fet su ma ñibbisee danaa fekk ñuy jàng si bind ku ku ñëw da ngay rang bind sa tur su ma yegsee damay lalaat di li ba une ci guddi ay doog a pare Tiwaawan buñ ko seddaan duñ ma weddi ma pare dugg sama néeg doog a jël sama téere nafar man ne ma ne waaw man xiif bii may dëkkee bu ma xëyee sept heures lekk ba guddi soxna mul xeeri boroom waañ bi benn bis mu ne waaw maam ko mbëlluum Iran fu muy lekkee mu ne ko ah xaw ma ko di léeg léeg de ma desal ceeb yónnee ko ko mu ne ana Fatou ci ñuy togg ci waañu la mu ne ko maa ngi mu ne ko demal génne bool mu génne bool mooy nañ koy tibbal ci añ bu njëkk bi añ bu njëkk mooy bi kilifa yi añ di ma ko yónnee voilà di ma ko yónnee mais avant lool lekk naa gerte xott boole xotti yéey ko parce que su ma ko xoolee du ma suur dem naa dama daan daggi ñax su ma ñëwee jaay ko jeexaat naa gerte jaay ko jaay naa ndaamaraas fi mu ne maa ngi toll ci jaay radi ak glace ak ndox waaw xam nga nag temps yi sax dama am naqar waaw sedd bi dafa ñëw pénaliser parce que dara jaratul da teewoon nag wàccalu naa kaamil pour yàlla delloo si tàngoor wi tiwaawoon moom na fépp sedd waaye tiwaan na tàng jër ndax ma jaral waaw ndax ma jaral alors que donc bi ma demee ba xam ne sekk ne euh, lii pertement la ma ne naa saxal di woor waaw ci la continuer di woor chaque jour parce que moo ko deful damay gaañu gannaaw 7 heures laay génn 7 heures laay dugg du ma lekk noonu laay def